asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki yi jullit yi bokki taalibe yi eh, ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar cheikhuna ahmadul xadim eh, di ñaanal sëriñ Tuubaa cheikh mahamadul muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal dolli ak wéram ñoo ngi emaat mbégte ci toogaat jataay boo xam ne jataayub sant yàlla la waaye jataay la boo xamante ne jataayub ndigal la ndigal li mooy lan mooy ndigal lu bàyyikoo ci sëriñ Abo Baraka xalifa cheikh mahamadul fadal yàlla na fi yàgg lool te ànd ko jaar ci sëriñ maam Cheikh Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal mu yebal fi njaboot gi ñu bokk toog ak ñun ñu fas yéene am kàddu yoo xamante ne bi rek daañ ko yëkkati ngir woote liggéey boo xamante ne bi euh, sëriñ maam Cheikh jot na ci ndigal ci sëriñ Abo Baraka kon damay bàyyee kàddu gi ak sëriñ Cheikhouna Sankhé asalaamaaleykum wa rahmatullah bokk jullit yi bokk taalibe yi waa kër Cheikh Mouhamadul Falilu Mbacke ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaare di leen baal te di leen te di leen jaajëfal baax baax di fas yéene ànd ak mbooloo mi nga xam ne ñoom lañ bokkal sëriñ maam Cheikh Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Falil Mbacke di leen jottali kàddu yoo xam ne dafa jógee ci sëriñ maam Cheikh Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Falil lu ñëw ci ñoon ñu fas yéene leen koo jottali ñi ànd ceeg ku ñu wax euh, sëñ Fallou Gala si Silla sëñ Abdou Diakhaté Ndiaye sëñ Abdou Khadir euh, Ndiaye ñii gën koo xam sëñ Abdou Khadir Ndiaye di ànd ak sëñ Khadim Ba Touba Bogo fas yéene jottali kàddu yi waaye incha allah rabbi bu soobee yàlla sëñ Fallou Gala Silla dana leen leeral lépp waaye ñi fas yéene ci tàll loxo góor ak jigéen mag ak ndaw lépp lu ci waaye defoon daaw rek fekkee yàlla suñu borom dogal na nga fekkewaat ko rek ñu ngi lay ñaan nga defaat ko ba def ci lu gën a kawe sa njort di ñaan yàlla suñu borom àggal ni suñu yéen ñëpp ci barke Cheikh Mamadou Falilu Mbàkke salaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu mbokk jullit mbokk taalibe yi bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di sant Serigne Touba di sant Cheikh Mahamadou El Fadil di sant Serigne Maam Cheikh di wax ne comme ni ko kilifa yi rek Serigne Fallou ak Serigne Cheikhouna ñoo ngi tàllal loxo ñëpp rek képp koo xam ne daal maanaam leetar bi yegsiwul ci yow it nga xam ne amoon na yéene bu yegsi yow waaye ñu ngi lay soññ bu baax a baax baax nañ ko defe woon rek fas yéene nañ ko taxawaat ko noonu ni ko sëñ maam Cheikh bëggee ko defee noonu incha allahu fas yéene maanaam jàpp si bu baax a baax rek waaw def lu kawe suñu jot daal bi suñu borom yal yàlla jàppal boppam ci barke Cheikhul Khadim jërëjëf euh, sëñ Abdou Diakhaté jërëjëf itam sëñ Cheikhouna kon euh, jërëjëf sëñ Abdou Ndiaye euh, sëñ Khadim Ba kon bokk yi liggéey bi moo di sëriñ maam Cheikh dafa wax ne jotaat na ndigal ci sëriñ Abo Baraka ginnaaw bu mu màggalee kazu rajab ba noppi mu àndaat ak bokki taalibe yëpp fu ab xarit mën a ne baa wëllëre baa am di jàmm baa di soppe baa ku yéene sëñ maam seex ndam sëñ maam seex nee na addiye ji nga xam ne waa kër Cheikh Mamadou Fadal tegoon nañ ko ci loxol sëriñ Abo Baraka mu teg ko ci loxol sëriñ mun Muntaxa addiye jooju lañ fas yéene woote waat ren sëñ maam Cheikh nag ne wax ne lam joxe woon daaw da koo fas yéene romb waaye fas fas yéene jam ndax yoonu sëñ tubaa amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am te wóor na ko ne sun dajalee na ci sun poos yi jox ko sëñ tubaa sunuy poos duutu widd kon nag sëriñ maam Cheikh nee ne ginnaaw bu mu ci soñee boppam ba noppi mi ngi ciy soññ sëriñ Baye Galas Mbàkke doomam ak képp koo xam ne moo la jaboote moo xam ngay góor wala jigéen di ci soññi sëriñ Ousmane Ba ca Fuuta ak mboolem ña dëkk Fuuta ñëpp di ci sànni sëriñ Pape Ngom ca Dakar ak mboolem ku féete Dakar di ci soññi itam sëriñ Ibrahima Mbeng dakaar ak mboolem ku féete dakaar sëriñ Njaga Seen ca Tëngéej ak mboolem ñu nekk Tëngéej ñëpp di ci soññi itam sëriñ Abdoulaye Guèye ca Louga ak mboolem waa luga rawatina nag njabootu sëriñ Maam Cheikh Mbay gi nga xamante ne bii maam Cheikhum sëñ Falilu moom la ko sëñ Fallu duppeewaat kon sëriñ Maam Cheikh ne lu muy dugg dana ci jiital ma ngi cey woo ñëpp nag bàyyiwu ca kenn di ci woo itam sëriñ Xaadim Ba ca Touba Bogo fàttewutam sëriñ Abdou Jaxate Ndiaye njiitul daayira Touba Mbacke ak mbooleem ñi mu àndal ñëpp Serigne Modou Fall ca Touba domaine ba euh, mbooleem ñi nga xamante ne bi ñoom la àndal Serigne Maam Cheikh daal nee na wóor na ko ne ndigal lii mu jot fas na yéene la mu joxe woon daaw dana joxe lu ko romb ba matériel am du ko fekke daraam du ko fekke ndax kat moom liggéeyal sëñ tubaa rek la la fas yéene nekk ca sëñ tubaa moo ne woon alhadiyatu tajsibul muridina ila sahada wa huluwil maqamat wa kasratul mali wa tuulul wa mahabati nnaas sëñ na addiya day bijji ab di yokk maqaamaam di yokk darajaam di di yokk alalam di guddal aw fanam di ko musal ci ñaari malaayka yi laaj ci bàmmeel kon yaakaar naa ne joxe addiya ci ab murit sëñ tubaa tënkoon na ci bayit yoo xamante ne bii murit bu ko xam doo noppi ci joxe addiya kon nag sëriñ maam Cheikh ne ne mi ngi ciy woo ñëpp nag di nag di joxe ay numéro téléphone yoo xam ne képp koo xamee ne liggéey bi kum tàbbi ci sam nopp rek na nga xam ne bay saw sas daat nay jot kon nag sëriñ maam Cheikh nee na képp koo xam ne bëgg ngaa jokkoo ak moom mën ngaa woote ci numéro téléphone am di 77 632 91 71 bu dee ne Serigne Cheikhouna Sankhé mën ngaa woote ci 77 318 27 90 wala nga woo Serigne Abdou Diakhaté Ndiaye ci 76 520 14 74 noo ngi ñaanal Serigne Abo Baraka yal na ko fi yàlla gën a yàggal te doole ak wéram ñaanal Serigne maam Cheikh moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke lépp lu mu sumbal Serigne Touba yal na ko ci suñu borom dimbal kàttanul boppam ba mu àggalee fa ko fa àggalee ko ak taalibe yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.